José. sur les bancs de l'école sur les bancs de l'école di jataay bu ñu jagleel njàng meeg njàngale meeg tàggatu gi ci Afia FM ngeen di ko am alarba bu jot ñeent jàpp juróomi wax sur les bancs de l'école di jataay bu ñuy waxtaanee mbooleem jafe-jafe njàng meeg njàngale mi di ngeen ci am itam yeneen xeeti reportage yuy waxtaane mbooleem jafe-jafe njàng meeg njàngale mi waaye tamit reportage yi ñuy jagleel yenn ci l'école yi fa mu gën a soree fu mu fi mën a nekk ci mim réew sur de l'école di jataay bu ngeen di am ci Afia FM leen ko àllarba bu jot lay doon ñeent jàpp juróomi waxtu ngeen di ci ànd ak Aji Maye Diagne Balde ak directeur Mouhamadou Moustapha Ba su ngeen ci bëggee bokk yéen bokk auditeurs yi mën ngeen a jaar ci 88 628 05 05 88 628 05 05 sur les de l'école na ñëpp ànd ngir njàng meeg njàngale mi mën a jot gëdd gi war ngir moytu lawal wopp jii di coronavirus ministère de l'éducation nationale ginnaaw bi mu toogloo ca kër ga élèves yi nekkul ci classe d'examen dafa taxawal beneen pexe tuddee ko apprendre à la maison maanaam jànge ca kër ga jubluwaayu pexe mi mooy élève ba toog sa këram di wéyal am njàngam ni mu ko daan defee ca école ba fii mu toll nii nag apprendre à maison tàbbi na ci ñaareelu jéego jéego boo xam ne bi da ci fas yéene ànd ak rajo communautaire yi ngir jëmmal duggug rajo communautaire yi ci apprendre à la maison nag ministère de l'éducation nationale dafa xaatim ak URAC di kuréel gi leen jaboote ab déggoo boo xam ne bii li mu jur mooy leçon yépp yi ñuy def dañu koy jaarale léegi ci rajo communautaire yi kon nag yéen élèves yi yéen jàngalekat yi yéen waajuru ndongo yi fépp fu ngeen mën a nekk ci réew mi mën ngeen teewlu leçon yi jàll ci rajo communautaire yi. rajo Afia FM 93.0. ci suba si. altine ba samedi bu midi jotee. ci ngoon si. altine talaata ak samdi bu di h jotee ba toftal fanweeri simili. jërë ngeen jëf mbokk yi déglu seen rajo Afia FM 93 point 0 comme ni ñu koy defee rek ci seen émission sur les bancs de l'école di njàng meek njàngale mi tey nag dañ ci def benn émission boo xam ne nag dañ ko jagle rek li nga xam ne moo di apprendre à maison mooy jàng ci biir kër gi loolee nag ki ko initié mooy ministère de l'éducation nationale ci lëkkaloom ak li nga xam ne nag mooy URAC di rajo yi nga xam ne nag mooy rajo communautaire yi nga xam ne nag ñoo nekk ci gox yeeg gox goxaan yi nekk nag fii ci biir euh, Sénégal ci noonee nag euh, tey jii nag euh, ñu ci dalal ki nga xam ne nag mooy suñu point focal fii ci Afia FM di inspecteur Ibrahima Diop nekk IA bu Parcelles Assainies ak ki nga xam ne moo di mooy Mouhamadou Moustapha Ba nekk nekk directeur école Grand Yoff A ak ma ciy ànd nag ak ki nga xam ne moo di soxna faatu Ndiaye balaa ñuy sori ci waxtaan bi ma bàyyi leen ngeen daal di nuyoo soxna faatu baa ngi lay nuyoo. lay fay euh, aji may di nuyu sunu auditeurs yi di dalal sunu gan yi jaam tey monsieur Ba mm-hmm. euh, sunu invité la à la place de co-animateur <laughs> euh, mais première émission zéro bi moo ko waral comme ni nga ko présenté benn programme la boo xam dañ ko jagleel ndaw yi ngir ñu mën a li facilité li nga xam ne moo di njàng mi ci période Covid 19 bi waaye di fàttali rek mesure barrière yi nga xam ne mooy li ci ëpp solo ñuy euh, faral di raxas loxo yi di bu ñu paree bu ñu génnee suñu ñëwee aussi suñu nekkee ci mbedd mi di utiliser li nga xam ne moo di alcool gel yeeg yooyu waaye di takk masque ndax port masque c'est obligatoire surtout ci milieu privé yi boo nekkee ci ay mbooloo ñu éviter aussi rassemblement yi comme ni nga ko teree donc dañuy dalal euh, monsieur Diop ñu bàyyi la nga nuyoo auditeurs yi asalaamaaleykum donc euh, auditeurs yi donc merci madame Ndiaye merci aussi Adji May Euh, merci monsieur Ba aussi ñi ma bokkal plateau bi donc euh, madame Ndiaye na ko léegi-léegi donc dafa am euh, activité bu ñuy def euh, avec waa AFIA FM ministère de l' éducation nationale lënku lëkkaloo ci ak AFIA FM pour jàppale xale yi nga xam ne ñoo nekk ci classe intermédiaire yi bu ñu nekk classe intermédiaire yi mooy xale yi nga xam ne defuñu examen ren euh, ñi nga xam ne donc CI la ñuy def p C1 ak C2 ñu war leen accompagner nag ci ay weer ñaar wala ñetti weer donc 72 leçons dañuy def ak ñoom hmm. lecture et en mathématiques euh, pour leur permetre parce que toog nañ lu yàgg xale yi jànguñu hmm. donc euh, huit mois ngi ni presque jànguñu ñu fàttali leen euh, rafraîchir seen mémoire yi au moins pour que au moins bu école di ubbi fekk mu am lu nekk ci seen bopp yi donc jërëjëf madame Ndiaye. Hmm. donc jërëjëf aussi monsieur Ba. Uh-huh. merci monsieur Ba ñu bàyyi la nga nuyoog auditeurs yi. donc jërëjëf Fatou. Euh, maa ngi nuyu auditeur Afia FM yëpp 93 point 0 di am mbégte aussi di bokk plateau bi ak euh, sama inspecteur jóg donc euh, programme boo xam ni rajo communautaire yi comme Afia FM bu mu defandoo ak bu mu lëkkaloo ak ak ministère national donc pour dimbali xale yi nga xam ne ñu ngi kër ga. boobu ba léegi bi mbas bi ñu duggee ba léegi ñoom jot ñu def dara léegi pour vraiment accompagner leen pour que parce que xale xale la rek pour ñu bañ fàttee donc loolu moo taxoon ñu ñu teg mettre en place euh, programme bi te vraiment neex nañu trop pour bokk ci ko mhm. voilà merci beaucoup. Mhm. waaw merci dégg nañu li nga xam ne nag mooy présentation comme nu ko Fatou Ndiaye waxee mesures yi moom toujours dañ ciy insisté mooy maanaam raxas li nga xam ne moo di loxo yi masque yi moom c' obligatoire nee nañ masque yi moom c' est obligatoire ko koo xam ne takku ko nag nguur gi dina teg ci yow li nga xam ne nag mooy ay daan rassemblement yi tamit ñu di ko éviter respecter tamit li nga xam ne moo jëm ci wàllum distanciation yi kon nag mën nañu wéyal li nga xam ne moo di waxtaan mais dañuy ñëw ci programme bi. ma ñëw ci Ibrahima Diop programme bi lan moo tax ministère de l'éducation associé ci ñi nga xam ne ñooy waa URAC di rajo communautaire yi. waaw merci bien merci bien Adji donc euh, lu tax ministère lëkkaloo ak euh, rajo communautaire yi mooy euh, boo seetloo depuis bi mbas mi commencé ak léegi xale yi ci gën a loru mooy xale yi nga xam ne ñoo nekk ci classe intermédiaire yi te xale yooyu par circonscription c'est-à-dire inspection bu nekk. inspection bu nekk dafa am ay réalité dafa am yoo xam ne ñoo ñoo xam ne moo fa nekk te réalité yooyu pour ñu mën ci wax euh, mu kole ak li xale yi du dund il foog ñu dem ci rajo yi nga xam ne ñoo gën a lëkkaloo ak askan bi donc bu ñu nee lëkkaloo ak askan gi communauté bi moo tax ñuy wax donc la communauté ñu ko leen gën a jege je pense bien ko mooy rajo communautaire yi looloo tax ministère def le choix de travailler avec l'URAC liggéey ak waa URAC donc liggéey ak rajo communautaire yi avec bien sûr seen service déconcentré yi mooy inspection yi ñun par exemple ñu ngi ci inspection de l'éducation et de la formation des Parcelles Assainies ni ñu koy defee ci Parcelles Assainies noonu la ñu koy defee aussi ci yeneen inspection yi ak yeneen rajo communautaires yi nekk ci gox yi inspection yi nekk looloo waral en réalité euh, ministère du travail ak ak rajo communautaire yi. est-ce que mën nañu xam tamit euh, temps bi lu tax ministre ministère de l'éducation toog ba waxtu wi di soogoo initier lii nga xam ne mooy apprendre à waaw apprendre à la maison wala jàng ca kër ga euh, boo gisee mu xaw a yéex euh, lii du initiative bu njëkk bu mm-hmm. nekk alternative par rapport à en fait xaw ma nu may waxee alternative ci wolof mu nekk lu remplacer euh, njàng mi nga xam ne xale yi dañuy toog jàkkaarloog seen monsieur c'est commencé woon nañ ko ak télévision yi boo leen seddoo bu baax ci ay télé yu mel ne TFM ak yeneen télé yi ñu ngi doon initier ay ay émission yoo xam ne xale yi dañ ci daan jàng mais boobu li gën a jàmp ci lañ njëkkoon a taxaw mooy classe yi nga xam ne xale yi dañu war a def examen donc loolu bi mu passé ñu ne nag comme mbas mi daf ñu bett il faut ñu réfléchir ñu xalaat ci ay initiative ñu xool ay stratégie yu ñuy tax ba xale yi aussi ñu mën di jàng ci seen ci seen kër loolu nag au niveau communautaire au niveau du ministère il faut aussi comme xale yi lu ñu leen di jàngal la il faut nekk lu ñuy xalaat donc DE les technicien de l'éducation regroupé wu xalaat émission yi xalaat stratégie yi loolu dafa jël temps mais teewul au niveau des écoles maîtres yi ko ci nekk yaa ngi jéem a fexe ba say élèves aussi di jàng mun bari mu néew ñu ñëw école ñu bañ a ñëw école lu tey aussi ñi di passer par WhatsApp canal bu nekk nit jaar na ci pour jàngal xale bi maintenant ñu ne pour harmoniser pour que xale yëpp mën cee jot il faut ñu jaar foo xam ne peut-être dina mën a laalandoo xale yi nekk ci inspection bu nekk c'est dans ce cadre dañu def émission bi émission bi dafa am ay support yi ko yi mu àndal yoo xam ne ñu ngi koy tiire au niveau de l'inspection xale bu nekk dina am ce qu'on appelle un carnet de l'élève carnet bi dafay am euh, des activités mathématiques dafay am aussi des activités euh, de français xale bu nekk dina ko jot bu ñu defee émission bi def leçon yi exercice yi xale yi mën nañu ko defal seen bopp kër ga. léegi carnet carnet yooyu élèves yi ñoom naka lañuy def ba jot ci ñoom. loolu moom ñun suñu liggéey euh, dañu koy tiire jaarale ko ci directeurs yi codec yi codec yi bu ñu nee codec mooy coordonnateur directeur yi ñoom lañ koy jox ñu jox ko directeurs yi directeurs yi woo parents yi jox xale yi xale yëpp incha allah dinañ jot seen carnet. Mm-hmm. justement ak yi euh, ñu laaj monsieur Ba en tant que directeur d'école nan la jàng jàng euh, ban analyse lay def ci programme bu ni mel. est-ce que jàpp nga ne lii mën na aider li nga xam ne moo di jeunes yi ah ñu rattrapé wu surtout ñu nekk ci classe intermédiaire bi. donc euh, merci Fatou euh, en fait man dama yaakaar ne rek initiative bu ñu jël pour dimbali xale yi c'est la bienvenue quoi émission vraiment initiative bu baax la peut-être bien que du ñu combler gab bi yëpp mais xale yi moom lu ñu am tuuti rek bu ñu waroon am dix bu ñu amee quatre wala cinq. baax na parce que ça participe de leur formation donc damay ne lii sax dafa c'est venu vraiment peut-être un peu en retard sax mais c'est venu vraiment à son parce que aussi dese nañu fii ba novembre pour bu ñuy ubbi donc xale yi lu ñu fu am rek incha allah da leen di da leen di loolu da leen dimbale da leen jàppale. Mm-hmm. c'est ça. Mm-hmm. léegi léegi yéen en tant que directeur yan jéego ngeen ngeen yaakaar na bu ngeen ko tegee li nga xam ne mooy apprendre à la maison bi dina gën a ñoŋ. waaw euh, am nga école yi aussi dañ ko organiser de telle sorte que am na ay comités yu nekk foofu ay commission par exemple ay association parents d'élèves association des mères d'élèves donc ñooñu ñëpp dañ leen di mettre en contribution pour mun jot ci xale yi parce que maanaam période bi ni xale yu bëree ñu ngi ci am na ñoo xam ni dañoo voyagé mhm. ah dañoo nekk vacances dañoo mais bu ñu jaaree ci réseau yooyu nga xam ne ñun mettre nañ ko en place ci école yi dinañ mun jot ci ci xale yi en tout cas la plupart même bu xale nekkee feneen fu sori sax moom mun na si mun na si jot. parce que aussi je pense que rajo communautaire yi war nañ déployer ay moyens yoo xam ni pour avec le net pour que permettre vraiment. ay yenn voilà ñu mun xale yi mun mun suivre voilà. c'est ça c'est ça. defe loolu am na solo. Euh, mm-hmm. mais euh, ak yi rek pour relancer euh, monsieur Diop. Mm-hmm. ci ndax impliqué ngeen directeur. directeur d'école yi je suppose que c'est tout à fait normal ak ñi nga xam ñoo di enseignants yi en sachant que ne c'est un secteur quand même un peu compliqué est-ce que impliqué ngeen leen ci pro projet bi waaw en fait euh, boo seetloo projet bi euh, projet bi dafa nekk projet boo xam ne c'est un projet inclusif bu ñu communauté éducative euh, yemul rek ci inspecteur bi directeur bi jàngalekat bi élève bi parent d'élève bi da ciy dugg yéen ñii rajo communautaire yi aussi da ngeen ciy dugg looloo tax euh, année scolaire bi dañu ko revisiter le calendrier de l' année scolaire euh, le décret du ministre euh, nous dit que le daf ko pousse ba début octobre fin fin fin septembre donc enseignants yi fi ñu toll nii nekk gu ñu ci vacances dafa mel ne ñu ngi nekk toujours en acti en activité mhm. donc ñooñu moom seen implication moom kenn waxatu ko directeurs yi la même chose maintenant li des mooy xëy na euh, partie communautaire bi. muy parents d'élèves yi. parents d'élèves yi day am un programme de sensibilisation. bu ñuy def tàmbale ko par exemple ci activité bu mel ni tey ci rajo yi aussi ay activités ay réunions yu ñuy programmer au niveau des codec bu ñu nee codec mooy zone pédagogique parce que bu ñu nee par exemple inspection bu Parcelles Assainies dafa ëmb unité 7 ba unité 26. ëmb euh, Cambérène jëlaale Patte jël Grand Yoff euh, jëlaale euh, côté xaar yàlla bi et et mm-hmm. donc fu ci nekk rek dañ ci am lu ñu tuddee zone pédagogique au niveau des zones pédagogiques dañuy fexe au niveau des codecs ñu convoquer les parents d'élèves li ñuy tuddee les CGE les comités de session mm-hmm. bu ñu leen convoquer dañu leen di sensibiliser par rapport ak activités yi ñuy mëne par rapport aussi au cahier d'activité que les enfants doivent récupérer yi nga xam ne xale yi dañ ko récupérer ci école yi de sorte que ñëpp ñu jàppandoo dóorandoo pour que li ñu soxla ci ci ci programme bi ñu man ko am. Euh, sànq dama dégg ne CODEC euh, fook ñu ngeen invité xaw ngeen woo leen ci waxtaan maanaam waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di parents d'élèves bi mm-hmm. kon su ma déggee kon waxtaan bi defoo leen ko woon avant mais après ngeen koy def. waa en fait bu ñu nee wax woo leen ñu waxtaan ñu waxtaanaat parce que depuis bi mbas commencé ba léegi. on ne cesse arrêté wuñu di communiquer ak ak ak ak directeurs yi di communiquer aussi ak parents d'élèves mais à travers suñu démembrement yi la muy les codec buñ codec yi ñoom lu ñu tënk jàpp ko ci inspection bi rek ñoom dañ ci jot léegi ñoom ñooy suñu bras technique ñoo ñuy permettre au niveau des écoles ñu mën a mobiliser nit ñi mën a def ay réunion ñun ñu ñëw assister leen mm-hmm. donc noonu la ñuy noonu la ñuy doxalee mm-hmm. léegi faa xam naa ñu fàttali émission bi ne sur les bancs de l'école la tey nag ñu lëkkaloo ak nga xam ne mooy ministère de l'éducation ak rajo associative yi maanaam URAC ñuy amal nag émission yoo xam ne dañ koy jagle ñi nga xam ne ñoo di xale yi CI ba CM2 ñu nar ko amal nag fii ci Afia FM comme ni ñu ko waxee ci spot bi day nekk lundi ba vendredi matin ak le soir diggante 17h 18h nag ñu jox leen deuxième partie bi ak samedi bi di ngeen di am nag émission boo xam ne nag tous les mercredis lay nekk nekk maanaam sur les bancs de l' école lépp rek ngir gën a mën a li nga xam ne nag mooy njàng meek euh, njàngale bi ak fàttali it li nga xam ne moo jëm ci wàllum mesure barrière yi di raxas loxo saa su nekk ak it <laughs> ak it di takk masque euh, yi feebar bi moom dañ ne jeunes yi ñoo koy ñoo koy indi ci kër yi mhm. day baax à chaque fois ñu leen ñaax quand même euh, ñu gën a moytu te respecter li nga xam moo di mesure barrière yi mhm. mais monsieur Ba mhm. tey jii jàpp nga ne bu ñu impliqué directeur d'école yi comme ni ko inspecteur waxee euh, c'est tout à fait normal parce que yen yéen a ngi continué di jàngale mm-hmm. mais euh, naka nga jàpp euh, gisee ne mbir mi pour mu réussir ak pour captiver jeunes yi pour ñu mën a toog déglu émission yi mm-hmm. mais aussi taxawaayu parent yi parce que booy xool émission boo koy déglu dañ lay wax ne su fi ndax am na parent bu toog su amul parent bu toog it niñ koy expliquer xam naa dinañ ñëw ci contenu yi. Mm-hmm. niñ koy expliquer xale bi dina mën a comprendre liñ koy defee. Mm-hmm. donc est-ce que implication parent yi dafa war a nekk mais yéen tam lan ngeen mën a jàppale élèves yi pour ñuy bàyyi xel ci émission yi. c'est ça donc euh, xam nga école bokk na ci milieu yi nga xam ne ñoo gën organiser fii ñun bu ñu bëggee def dara xam nañu am nañu ay. stratégie ay stratégie yoo xam ne teg nañ ko du yàgg. Mm-hmm. à chaque fois ci la ñuy jaar. pour en tout cas jàllale la ñu bëgg jàllale. ci biir école ba tax na CGE yi comme ni mu ko waxee woon sànq ah d' abord ci CODEC yi. CODEC yi mooy collectivité directeur décole donc ñoom lu inspection nas si ñoom la koy jaarale day waxtaan ak ñoom après ñoom ñoom ñoo koy partagé donc ñoom CODEC yi CGE yi ak yenn association yu nekk ci biir école association des anciens élèves association des mères d' élèves ñooñu ñëpp c' est des associations yoo xam ne ñu ngi am ci école yi. te ñooñu dañuy accompagner bu baax ah leen école bi de telle sorte que ñun bu ñu bëggoon jàllale benn affaire foofu lañ koy jaarale pour que vraiment bu ñu leen mobiliser rek. ñoom ñëpp dina ñëw. ba tax na parents d'élèves yi xam nañu aussi ci parents d'élèves dafa may parents d'élèves yoo xam ne qui sont très influents yoo xam ni si ñoom ngay jaar rek loo bëgg am ci koñ bi wala ci élèves yi incha allah da nga koy am. donc loolu yëpp euh, am na ay stratégie yoo xam ne ñu ngi ci biir école yi. te école bu ne xam na fu muy jaarale ba vraiment mobiliser mobiliser élèves yëpp donc je pense que c' est très possible que vraiment que xale yi jot ci karne yi mais aussi effectivement li ñuy xaar si ñoom ñoom ñu def ko mooy pour dimbal la surtout que parents yu bëre son nañ trop ci kër yi <laughs> pour gérer xale yi donc initiative bu mel ni bu ñëwee rek ala kulali ñoom ils sont tenus mhm. vraiment de nous parce que ñu en réalité ñoom la ñuy dimbali voilà uh-huh. léegi faa damay dellu si ba tey ci classe intermédiaire yi parce que boo xoomee boo xoolee ñoom la ñu jagle li nga xam ne mooy apprendre à la maison bi mais récemment parce que ministre bi tamit dafa waxoon ne classe intermédiaire yi euh, seen not yi la ñuy calculer pour ñu mën a jàll classe supérieure mais kon est-ce que lii ñuy def nii am na ci solo ndax dina am impact waaw en fait ñun jot nañu euh, bataaxal bu ñuy wax en fait comment faire pour que xale yi ñu xam ñan ñooy jàll ak ñan ñoo dul jàll. Mm-hmm. mais fi ñu toll nii même kiy jàll xale bi nga xam ne dafay jàll wala jàllut jàll jàll naag jàllut yëpp. Mm-hmm. Euh, émission bi wala njàngale bi ñuy def ci apprendre à la maison bi da koy amal njariñ. c'est ki nga xam ne dafay jàll parce que am na ay critères yu ñu teg mm-hmm. xale bi nga xam ne peut-être dafa am une moyenne de quatre jëm kaw. xale boobu xale boobu dañuy jàpp ne xale buy passé la classe supérieure mm-hmm. n'est-ce pas 4 sur 10 4 sur 10 mm-hmm. xale bi nga xam ne nag jege na 4 et eggul 4 moom bu école ubbee dañ koy defal test xool bu dee réussir na ko ñu jàllale ko ñi nga xam ne nag moom seen niveau dafa faible trop ñooñu la ñuy wax ne nañu defaat classe bi mais comme ci mënti nekk kiy jàll kiy def test bi ak ki nga xam ne day defaat classe bi yépp bu dee déglu na émission bi en principe dina am lu mu yokk ci xam-xamam. kii jàll bu yokkee xam-xamam bu demee classe supérieure du am trop de difficulté. kii def test bi dina ko permettre peut-être bu defee test bi yàlla def ci xéwal mu jàll ki nga xam ne nag moom des na ba léegi. loolu aussi mu fortaat ci as tuut ba déwén mu am lu mu taxawee. ba déwén bu ñëwee mu mën a mu mën a jàll classe bi ci toog. c'est je pense que loolu mooy esprit bi nga xam ne moo animé en réalité. Euh, njàngale bi rappeler aussi encore une fois que njàngale. jàng du rek pour passer mm-hmm. l'essentiel mooy xale bi na acquérir ay compétences n'est-ce pas du moment que am nañ loolu rek je que mooy réussir nañ suñu émission euh, dam si dam si yokk rek que nit ñi dañuy fàtte yenn saa mm-hmm. que xale yi benn trimestre rek moo leen dese woon defoon nañu deux trimestres mm-hmm. benn trimestre rek franchement euh, émission bii ñuy nar teg nii à partir d'aujourd'hui si vraiment am na suivi bu baax xale yi vraiment ils vont ils vont tous gagner voilà c'est-à-dire nag maintenant je crois qu'il faut insister sur ça sur vraiment une bon publicité ba émission bi ñëpp xam ni que am na que parent yi ñoom it ñoom ñëpp ñu naan seen doom heure bi ni jot na kaay leen suivre voilà je crois que loolu moo ci ëpp solo absolument ci apprendre à la maison boobu sax sànq inspecteur yaa ngi wax ne am na 72 cours yu ñuy joxe est que mën nga si ñëwaat waaw cours yi euh, cours yi en français la ak en mathématiques parce que euh, ministère dafa def option euh, xam nga njàngale dafa bëri ay pàcc mm-hmm. yi ñuy wax les domaines euh, am na foo xam ne peut-être ci français bi la làkk français bi mm-hmm. am na boo xam ne calcul bi la mathématique bi la mm-hmm. am na boo xam ne mooy leçon yi am na yoo xam ne aussi mooy éducation physique chant et autres yooyu la ñuy tuddee les domaines ci ci ci ci njàngal njàngale léegi ministère dafa ne fi ñu toll nii dafa jàmp boo seetloo li ñu desee ñaari weer la maximum temps bi il faut que ñu maximiser ko donc dañuy jël li ñuy tuddee les disciplines fondamentales bu ñu nee discipline fondamentale mooy yi nga xam ne mooy tax xale bi taxaw pour mën a jàng li ci des muy làkk français bi parce que lépp lu xale bi di jàng ci école ci làkku français bi lay jaar. xale bi bu déggul tubaab du mën a calculer du mën a jàng leçon am du mën a def leneen ak leneen. Mm-hmm. loolu mooy li njëkk li ci topp mooy calcule bi bu ñu nee calcul en fait calcul quand je arithmétique daf ci bokk. Mhm. mooy euh, calcul ñuy def. Mhm. géométrie. Mhm. Euh, la mesure. mesure ak maintenant résolution de problème. yooyu ñu jàpp ne bu xale bi mënee calculer dégg tubaab li ci des mën na ko sooxaale yóbbu ko te du ko sonal. mais ñaari benn bu ci sookee bu ne boo moytul xale bi dina am ay difficultés pour continuer scolarité. c'est waaw looloo tax ñu def option wu. jàng euh, hmm. les 72 heures en français les 72 heures en mathé en hmm. mathématique ñu ngi wax ne euh, calcul yi quand même euh, expliqué nga ko arithmétique la ak yeneen yi hmm. <laughs> mais ci français bi njàng mi lecture la wala dafa am yeneen matière yu nekk ci biir non français bi en réalité du du lecture kase lecture point pour pour pour dugg la n'est-ce pas c'est vrai que léegi présentement avec la nouvelle option dañ ko jàppee comme une compétence à part totale mm-hmm. qui a une part totale euh, nest pas mais du lecture kase mm-hmm. parce que am y lecture ak yeneen discipline yi li ñuy tuddee les disciplines outils mm-hmm. muy grammaire bi nan la làkk bi di di di doxe muy conjugaison bi verbe yi ñuy conjuguer muy orthographe bi bindu mooy nan lañ koy binde vocabulaire bi signification wu mooy ensuite il y aussi ce qu'on appelle euh, la rédaction en fait ñu tuddee woon rédaction bu njëkk production euh, d'écrit moom la mhm. production d'écrit mhm. moom nga xam ne moo ëmb lépp parce que da nga ci lire def ci euh, grammaire def ci conjugaison def ci orthographe mhm. moo tax boo seetloo ñoom jàngalekat yi am nañu langage bu ñu am dañuy wax ne c'est une discipline intégratrice donc lépp luy njàngum français boo ko seetloo ci production d'écrit da nga ko ciy gis parce que en réalité njàngum français bi li ñu ci jublu mooy mooy communiquer mu nekk communication boo xam da ngay bind mbaa mu nekk communication boo xam ne da ngay wax donc loolu mooy euh, objectif yi en réalité d'accord léegi fa ba tey ñu dellu siwaat euh, ak inspecteur parce que lii tamit programme la boo xam ne dañ koy teg pour ñi nga xam ne ñoo di xale yi léegi naka ngeen di def ba am feedback bi wane na xam le ne xale yi ñoom ñu ngi suivre bu baax seen parent yi tamit ñu ngi leen di accompagner waaw loolu boo gisee support yi ñu jox mooy euh, les carnets de de l'élève mm. bu ñu ko joxee c'est parce que quelque part maîtres yi dañ koy suivre donc bu ñu defee ay émission à un moment il faut xale yi def ay exercice mm-hmm. exercice yi bu ko xale yi defee ba pare ñun dañuy xool euh, ci exercice yi est-ce que xale yi effectivement exercice yi ñuy def mm-hmm. ñu ngi trouver waaw walla déet mm-hmm. bu boobaa nag ñu natt ko xool lan moo ci dox ak lan moo ci doxul parce que émission aussi même bu ñu koy def de temps en temps day laaj ñuy réagir ak di dellusiwaat ci li nga xam ne peut-être Euh, jàpp nañ ne xale yi mokkaluñu ko. Mm-hmm. donc euh, carnet de yi carnet de de l'élève yi maître yi dañ koy exploiter euh, li xale yi di liggéey ba pare remonter ko au niveau de l'IEF mm-hmm. ñun ñu def analyse bi ba pare ñëwaat indi indiwaatal leen le feedback comme ça ñu xool maintenant comment réagir mm-hmm. ak nan la ñuy def ba accompagner xale yi pour que li ñu leen di jàngal mu am njeextal ci ñoom. waaw parce que su ma la déggee carnet yooyu da ngeen koy wàcc waat ci base bi maanaam directeur yi ngeen koy jox wala kii yi ngeen koy jox ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi. directeur yi lañ koy jox ñu jox ko jàngalekat yi jàngalekat yi jox ko élèves après élèves yi delloo si ko ci directeur yi. élèves yi di ko def. Mhm. parents yi di leen suivre élèves yu nekk seen maître di leen suivre. Ah, mais mais comme monsieur Ba bu fekkee ne pour nga pour mu am impact comme ni mu ko waxee ak surveillance bi ci war. Mhm. Euh, est-ce que xam nga élèves bu en temps normal des fois ñu bañ a def seen exercice. Mhm. mais par exemple bu fekkee dañ leen jox kay te remplir uñ ko peut-être parents yi amuñu jot toog di déglu. Mhm. wala di leen encadrer. est-ce que am na yenn disposition yoo yoo leen jël yéen en tant que directeur d'école pour que quand mu am suivi boo xam ne dinañ def exercice yi ni mu waree. Euh, xam ngeen bi euh, du nekk affaire bu yomb moom. Hmm. ce sera hmm. parce que tout simplement d' abord innovation la c' est affaire bu bu bees la daal maanaam donc ala kulla leen du yomb dina jafe mais ñun dinañ ci xar suñu tànk tubéy pour vraiment que expérience bi ñuy def ni ñuy dem nii. pour que ça soit une réussite te incha allah lu mu laaj rek ñun dinañ ko def pour pour kii ko parce que même en temps normal da ngay jox gis nañ ko ñu dem ñu ñëw fekk fekk defuñu ko mm-hmm. n'est-ce pas à plus forte raison nag ñu ñu nekk ci ci ci situation bi nii par conséquent ñun vraiment dinañ am waxtaan bi daal dina xóot mm-hmm. il mu nekk waxtaan bu xóot et puis il faut que mu nekk don de soi mm-hmm. n'est-ce pas enseignants yi comme ni leen xamee ñoom nag jekk vraiment lépp loo xam ne réew mi soxla na ko ñoom taxaw nañ ci mais y' a pas de raison que ñoom gis nga as ñoo gën a yërëm xale yi surtout xale yi nag ci kër yi as ñaay ñoo leen gën a yërëm te man leer na ma ni si euh, bu ñu leen impliqué bu baax ah ñu waxtaan ak ñoom il vont prendre le taureau par les cornes te incha allah on va vers la réussite de ce projet la waaw monsieur Ba ma ko déggee dafa mel ni implication bi dafa xaw a des daal. non c'est-à-dire que xam nga bi la. Mm-hmm. c'est à un niveau rek la yemagum. Mhm. mais wàccagul mais incha allah ah je crois que à partir de de ce, jour bu ñu fi jógee. Mhm. on parce que déjà ñun jot nañu courrier bi. Mhm. jot nañ ko les directeurs d'école jot nañ ko. mais je crois que on va pousser la réflexion pour que véritablement ñu organiser wu dans les écoles pour que ñu waxtaan ñun ñëpp ah il faut ñu dem vers vers loolu parce que aussi xam nga directeur d'école yi il pouvait pas mun ñu woon wax. ak enseignants yi. fekk effectivement xamuñu lan moo wundu affaire bi yëpp. donc mais bu ñu leen expliquer rek il vont comprendre je pense que incessamment le CODEC va se réunir par rapport à ça pour partager pour que ñu mun xam directeur d'école yi xam lan la ñuy wax enseignants yi pour que ñu xam vraiment ban taxawaay la ñuy am quoi. effectivement kii bi des na tuuti euh, sensibilisation des na tuuti au niveau des des, des écoles ak à, à, la base. mais incha allah tout cela on va corriger parce que vraiment. affaire bi jar na ko. mais est ce que comme euh, <laughs> monsieur Diop affaire bi defuñu ko euh, kii wu précipitation kon <laughs> xam nga fi ñu toll nii lépp lu ñuy def ci précipitation lañ koy def. parce que contexte bi contexte bi moo demee noonu. daf ñu bett du dara lu ñu préparé en réalité. Mm-hmm. donc initiative bu ñu jël rek pour dimbali xale bi. Euh, elle est la bienvenue. c' est vrai que bett nañu. nit ñi xalaat nañu boo gisee question bi ñu njëkk a posé. par rapport au retard. pour démarrer activité bi c'est parce que aussi bëgg nañu lépp loo xam ne dañ koy def ci xale yi mu nekk loo xam ne dañ koy mm-hmm. que euh, njàngale du du du lu yomb mm-hmm. et ensuite lépp loo ciy def impact bi muy am ci ay nit nga koy def mm-hmm. donc xale yi il faut que nga loo leen di jox jox nga jox leen loo xam ne dafay digeste c'est ça ne xale yi dinañ ko mën a dinañ ko mën a dinañ ko mën a comprendre maintenant beneen affaire bi nga xam ne dama ci ñëw moo yaa ngi ciy insister sax ba léegi c'est sur la sensibilisation c'est vrai que enseignants yi inspection même journalistes yi rajo communautaire yi ñëpp mën nañu euh, mobiliser wu pour xale yi jàng mais pour activité bi ñu ci gën a am part de responsabilité mooy parents yi c'est ça parce que xale yi bu ñu waxantee dëgg commencé ko part ci sama doom man pour nga gis ñu toog ci télé bi wala ci rajo bi jàng c'est tout un problème mm-hmm. looloo tax la bataille de la sensibilisation il faut ñu gagner ko c'est te pour ñu gañe ko nag il faut que ku ci nag sa wàll li nga fi nga war a taxawee nga taxaw fa taxawaay bu bu am solo. c'est ça muy directeurs yi muy euh, codec gi muy enseignants yi muy inspection bi. parce que mm. inspection bi aussi rôle am du rek joxe ay instructions mais dañu am rôle supervision aussi. c'est ça ak di ñaax nit ñi pour ñu pour ñu pour ñu topp euh, programme bi. Mm-hmm. mobiliser parent yi wax ak ñoom parce que fi ñu je pense que. parent bu ci nekk bu ñu la waxee ne sa doom na toog ci télé bi wala ci rajo bi jàng yow la ñu dimbali. c'est ça parce que xale yi li ñu toog te jànguñu dafa yàgg. Mm-hmm. huit mois. c'est pratiquement une année scolaire. Mm-hmm. donc euh, loolu daal laa xam ne il faut ñu insister ci lu bari. c'est ça sensibiliser sensibiliser encore une fois sensibiliser. c'est ça mm-hmm. n'est-ce pas. mais les écoles privées également ñoom impliqué nañ leen ci programme. waaw les écoles privées sont impliquées parce que quand on parle de la radio communautaire ñoom. dañuy bénéficier ci euh, plateau bi. Mmh. mais pour ce qui est maintenant des. carnets euh, des carnets ils n'ont été prévus par le ministère. c'est ça ça il faut le dire. c'est uniquement pour les écoles uniquement pour mmh. initiative privée la c'est une entreprise privée ça il faut le aussi. ku ci nekk da ngay fayeeku au niveau de ton école vous allez parce que li ñuy wut mooy qualité nañu organiser wu ñoom fexe parce que nous avons par exemple les supports en version numérique bu ñu ñëwee à l'inspection on peut leur remettre ça c'est ça on leur remet ça maintenant ils tirent au niveau de de leur école jox ko seen élèves yi. c'est ça comme ça élèves bu ci nekk mën ci mën ci bénéficier surtout que mais monsieur Diop tamit foofu doguma la sax mais bu école privée yi tamit boo xoolee xale yi ciy jàng tamit suñuy doom lañu ñun ñëpp. parce que peut-être loolu tamit est-ce que jaruloon tamit xoolaat parce que privé la quand même mais tamit xale yi fay jàngee. ci école yi la ñuy jàngee peut-être public bi fees na mënuñu leen cee dugal moo tax ñenn ñi jël seen doom yóbbu leen. yóbbu leen privé waaw dañuy remercier d' abord euh, ñi nga xam ne ñoo jël seen initiative ubbi ay école privée parce que en réalité ce qu'ils font euh, loolu état bi la war ñoom dañuy dimbali état bi dans la prise en charge euh, de l' des enfants loolu benn la mais fii situation bi li ci nekk mooy le ministère n'a pas suffisamment de moyens pour démultiplier l'ensemble des carnets pour, pour, euh, pour des carnets pour l'ensemble des élèves de de ce pays-là. Donc ñi prioritaire mooy public mooy public bi. ñi am moyen jël seeni doom yóbbu ci école privée. Mm-hmm. ñooñu war nañ mën a au moins démultiplier le carnet. c'est ça pour leur surtout que man dama ci bëggoon yokk rek. Mm-hmm. que quoi qu'on aussi. Mm-hmm. privé yi ñoom daanaka ñoom ñu ngi woon ci ay programmes yoo xam ne ñu ngi ko doon def ak seen. élèves yi alors que privé public bénéficié woon franchement ci loolu. franchement de telle sorte ñoom ce sera un vraiment si ñoom lay gënee sax quoi ñoom bu ñu demee jël initiative. jël affaire bi partagé ko ak seen élèves yi. ñoom ce sera beaucoup un plus. Mm-hmm. parce que ñoom déjà la plupart du temps ñoom seen xale yi tooguñu. ñoom ñëpp ñu ngi woon def dara quoi voilà voilà c'est ça. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw Fa dafa mel ni xam naa lu ñu cërale woon ci waxtu wi. daanaka des na tuuti rek mais xanaa rek pour gën a euh, approfondiraat comme un peu programme bi. Mhm. Euh, dure bi déjà sur trois mois la. Mhm. mooy temps daanaka deux mois moo ci des temps bi nga xam moom lañ consacré euh, jeunes yi ñu ne si classe intermédiaire pour ñu mën a jàng à la maison. Mhm. Euh, donc est-ce que bu programme bi jeexee école normalement dañuy yaakaar mu ubbiwaat. mais initiative initiative bu mel nii quand même. parfois day baax ñu continuer ko même bu ñu jàngee quand même école ba wàcc war nañu mën a am benn euh, temps d'antenne boo xam ne mën nañ dem déglu émission yi. Mhm. pour di ko au moins euh, mu leen di rappel yenn cours yi nga xam ne doon nañ ko def euh, à l'école. est mhm. initiative bi après day continuer wala c'est juste pour la période Covid. waaw incha ñun de ñu ngi réfléchir au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation des Parcelles Assainies mhm. di xool alternative bi ñu jël est-ce que après mbas mi. dañuy fexe xool nu ñuy travailler avec les radios communautaires de sorte que à la place du nekk dootul nekkati alternative mooy mu nekk une complémentarité mm-hmm. parce que euh, mbas mi dafa am ay leçons yu bëri yu ñu ci jàng mm-hmm. euh, on se rend que am nañ ay moyens yu fi nekk yoo xam ne soit utiliser wuñ woon woon wala on les avait très mal utilisés mm-hmm. pour dimbali xale yi seen jàng donc lii mu nekk une initiative heureuse bu bu jeexee nañ ko évaluer xool lan la def ci njeexital ci xale yi. maintenant si on juge et, et je le pense bien que c'est une bonne initiative. je pense bien que rien ne nous empêche au niveau local muy sunu inspection de l'éducation et de la formation. c'est ça. même bu dul ministère moo jël initiative bi. que ñun ñu xool comment on pourrait exploiter ce créneau. ba lii ñuy def ci émission yi mën a am un impact chez les enfants. de sorte que bu ñu ñaanu ñu ko yàlla yàlla bu mu amati. lu mel ni bu ñu bettee it day fekk ñu ngi ci ba pare. c'est ba pare dina aider à ce que jeunes yi nga xam ne tout le temps ñu ngi ci internet bi. Mhm. ñu am beneen beneen support boo xam ne dinañ ci jëlee xam-xam. que que leneen parce que cours yi même ñi dama naan même ñi nga xam ne sax euh, romb nañ yenn classes yi. nañ ci jàng dara buñ ci toogaatee <laughs> buñ ko dégluwaatee dina leen am ay rappel yu mu leen jox te c'est des leçons yoo xam ne yu intéressantes la. oui mais pour pour preuve. Mhm. pas plus benn parent dafa ñëw. Euh, woo ma kër ga mu romb noonu rek ci balcon bi kaa ne ma monsieur Ba man de dama la soxla ma ñëw quoi ma ma wàcc mu ne ah man de te moom moom moo doon encadré doomam mais situation bi ni te effectivement xale bi école privée la nekk nekkul classe d'examen sax quoi mm-hmm. mais dañ ko jox exercice mais parent bi <laughs> mënu ko mënu ko tu vois donc mais ñooñu ñooñu bu ñu leen euh, bu leen mettre ci créneau yi. Mhm. mais ñoom non seulement non seulement c' est bien pour leur enfant mais ñoom sax seen bopp dañuy réfléchir waat seen mémoire da <laughs> yi ñoom bañu ñu sax jàppale xale mais problème bi mooy curriculum bi ñuy utiliser <laughs> ñu ci bari maîtriser ko léeg-léeg da ngay jàngal sa doom sax nga dem mu ne la noonoo du nii mm. parce que ñun problème opération lañ doon def ak <laughs> résultat mais problème moo changé waaw euh, bon euh, xam nga en réalité jàngale ci boppam moo complexe c'est jàngale c'est pas pour rien nit ki balaa mu ñu koy jox xale balaa ñu koy jox classe. ñu koy ñu koy defloo une formation. tàggat ko non seulement day def li ñuy tuddee une formation ñu jàngal ko ci centre de formation yi mais bu loolu weesoo sax euh, bu ñëwee ci école bi dafay continuer formation monsieur Ba mi xam na li may wax. Mm-hmm. Euh, ci cellule d'animation pédagogique yi. Mm-hmm. chaque euh, quinze jours ils ont deux heures yoo xam ne enseignants yi dañuy dajale xool njàngale bi ku ci nekk nu ñu koy defee. ak yooyu donc pour dire que. jàngale du du lu yomb ci parent bi nga xam ne benn élève la yor këram ni muy sonne <laughs> nga imaginer nag léegi maître bi nga xam ne moom trente cinq quarante ba cinquante élèves lay yor ci ci classe bi. Mm. c' est pas du tout évident. mais nag bu ñu waxtaanee parce que même bu dee parent bi jàng na tuuti même buy jàngal doomam ci kër ga li ci am solo mooy euh, lien bi am diggante parent bi ak maître bi bu mu dog booy encadrer sa xale del ñëw ci maître. c'est loolu mooy permettre yenn difficultés yi nga xam ne mën nga ko am sa kër. nga mën di ko moytu maître bi di la woon ay yoon yoo xam ne di nga ko mën a moytu. Mm-hmm. sa xale bi sax du xam ne yoo xamuloo ko en réalité. <laughs> parce que tamit xale. il faut le xale bu la wóolootul mënatoo ko jàng. dëgg la loolu moom euh, jàngalekat yi xam nañ li may wax mm-hmm. n'est-ce pas. donc li am solo daal mooy. ñu comprendre que ne euh, problème la boo xam ne ñun ñëpp ci war a jàpp. c'est ça muy jàngalekat bi muy parent bi. muy euh, directeur bi muy inspecteur bi mm-hmm. en réalité on le fait uniquement pour les enfants mm-hmm. donc il faut que ñun ñëpp ñu jàpp ci. c'est ça waaw xanaa peut-être rek comme ñoom ak syndicalistes yi. Mm-hmm. ay kii lañu ay xarit lañu. est-ce que impliqué leen ci projet bu ni mel pour que quand même ñu bañ a ñoom it euh, nekk ci place publique bi peut-être di critiquer parce que lii defe naa ne lu am solo la loo xam ne. Euh, pour pour xale yi la. peut-être est-ce que impliqué ngeen leen pour. waaw affaire yi gën a waaw merci beaucoup et c'est une question vraiment importante mm-hmm. parce que lii en réalité li ci ëpp solo ay aspect technique muy nan la ñuy confectionner exercice bi exercice yi leen di jox euh, niveau de difficulté yi bu ci nekk nan lañ ko nan lañ ko nan lañ ko defaree émission yi nan la ñuy dérouler nan la ñuy dérouler leçon loolu c'est des aspects techniques jàngalekat yi la inspecteurs yi ñoom ñoo koy defar mm-hmm. maintenant le syndicaliste xam nga lu tax critique am am solo da lay permettre eh, yi nga xam ne mooy ay rëq-rëq yu ndaw nga mën ko gis eh, di ko oh, di ko corriger mm-hmm. maintenant les syndicalistes nit ñi dañuy fàtte ne syndicalistes yi c'est des enseignants mm-hmm. bu ñu waxee impliqué enseignants yi mooy impliqué nañ syndicalistes yi mm-hmm. moi qui vous parle je suis dans un syndicat je suis sûr que monsieur Ba est dans un syndicat bien sûr donc ça de manière formelle dañu convoqué les syndicats pour waxtaan ak ñoom li c'est des aspects techniques donc euh, bu gis nañ ci loo xam ne mën na améliorer. Euh, système bi la stratégie. Mhm. dañu koy eh, dañu koy wax rek ñu tam ñu intégré ko. c'est ça maintenant on on avance. n'est-ce pas. waaw mhm. waaw xanaa ñu bàyyi sunu eh, eh, invité yi ñu tàggatoo ak monsieur Ba. ba euh, <laughs> donc voilà moi je pense que damay saluer initiative bi euh, comme ni mu ko waxee woon sànq c'est initiative qui est venue vraiment à son heure quoi donc euh, et que en tout cas euh, je sais que au niveau du CODEC. ensuite au niveau des écoles les gens feront tout pour que expérience bi nii pour que ça marche parce que euh, xale yi rek ñoo ñu soxal ñun suñu devise mooy tout pour l'enfant n'est-ce pas donc on est pour les enfants te lépp loo xam ne day dimbali xale yi pour ñu avancer incha allah dinañ ci taxaw te macha allah dinañu euh, euh, accompagner projet bi ba vraiment fu mu war egg mu egg fa incha allah voilà mm-hmm. merci beaucoup mm-hmm. Mm-hmm. waaw donc d'abord dañuy d'abord remercier euh, waa rajo bi à commencer par la directrice madame Ndiaye Adji May et aussi monsieur Ba di remercier aussi toute la communauté éducative des parcelles bàyyiwuñu kenn nag a commencer par l'IEF les CODEC les directeurs parents d'élèves yi suñu partenaires yi élèves yi bàyyiwuñu kenn di remercier ñëpp di leen xamal ne aussi euh, cette émission la c'est la vôtre. c'est ça donc euh, nit ñi ku ci am une idée euh, boo xam ne mën nañu corriger mbaa mu dimbali ñu pour améliorer ko l'idée et la bienvenue. c'est ça et donc ñaan yàlla aussi émission yi nga xam ne ci lañ jëm. Mhm. yàlla def ci xéwal ba ñu defee ko ni ñu ko bëggee. mu am impact aussi ci xale yi comme ni ñu ko bëggee. incha allah donc di remercier encore une fois tout le monde. c'est ça mhm. merci. aji xanaa di leen jaajëfal di jaajëfal suñu invité vraiment euh, émission bi man mii dama see wàll yaa ne sax bokk. <laughs> bàyyi politique bi tuuti. <laughs> waaw waaw bàyyi euh, di la gërëm di leen remercier <laughs> vraiment ci participation bi aji ñu bàyyi la nga tàggatoo tey. waaw Fatou Ndiaye yow tamit dañu lay jaajëfal bul bàyyi politique yi tooga ci politique rek léeg-léeg la soxlaa woo la di jaajëfal tamit inspecteur Ibrahima Diop moom nag mooy suñu point focal Fandiaye ci suñu émission yi euh, di jaajëfal tamit tey monsieur Ba moom tey sama invité la Mouhamad maa ngi lay jaajëfal bu baax bu baax mu nekkoon mu nekk tamit directeur école Grand Yoff a tey nag ñu doon waxtaane lu am solo mooy waxtaane lu jëm ci programme bi apprendre à la maison bi nga xam ne nag ministère de l'éducation moo ko teg euh, di ci ànd nag ak li nga xam ne mooy rajo associative yi ak communautaire yi URAC tey nag ñu dalaloon leen ci émission bi dañ leen di jox euh, dig daje rek beneen àllarba suñu beneen invité. merci beaucoup merci yi mën ngeen a jaar ci 88 628 05 05 88 628 05 05 sur les bancs de l'école na ñëpp ànd ngir njàng meeg njàngale mi mën a jot gëdd gi war. ngir moytu lawal wopp jii di coronavirus ministère de l'éducation nationale ginnaaw bi mu toogloo ci kër ga élèves yi nekkul ci classe d'examen dafa taxawal beneen pexe tuddee ko apprendre à la maison maanaam jànge ca kër ga jubluwaayu pexe mi mooy élève ba toog sa këram di wéyal am njàngam ni mu ko daan defee ca école ba fii mu toll nii nag apprendre à la maison tàbbi ci ñaareelu jéego jéego boo xam ne bii da ci fas yéene ànd ak rajo communautaire yi ngir jëmmal duggug rajo communautaire yi ci aprendre à la maison nag ministère de l' éducation nationale dafa xaatim ak URAC di kuréel gi leen jaboote ab déggoo boo xam ne bii li mu jur mooy leçon yépp yi ñuy def dañu koy jaarale léegi ci rajo communautaire yi kon nag yéen élèves yi yéen jàngalekat yi yéen waajuru ndongo yi fépp fu ngeen mën a nekk ci réew mi mën ngeen teewlu leçon yi jàll ci rajo communautaire yi. rajo Afia FM 93 point 0. ci suba si. altine ba samedi bu midi jotee. ci ngoon si. altine talaata ak samedi bu 17h jotee ba toftal fanweeri simili.